Jungle. maaleykum wa rahmatullah yéen mbokki jullit yi mbokki taal bi ñu ngi leen siyaar bu baax di siyaare mbokk yi nga xam ñoo ne ci waañ wi di sàkku ci bis bu tedd bi di bisu waaju baax ku ñëpp xam ci yoon wi di yoonu Serigne Touba ci ginnaaw loolu nag euh, ñu ngi jégalu bu baax di nuyu suñu Muntaxa di ñaan suñu boroom mu guddal aw fanaw wéral ay cëram mboolem jullit kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu mbokk yëpp bàyyiwun kenn mboolem famille jaxate rek bàyyiwun kenn ku bokk ci maam xaali rek bàyyiwun kenn kon bis bu tedd bi ñuy defal maam Modou xaali di doom si maam xaalima jaxate kala ñu koy def ay ati at ren jii nag ñu ànd ñun njaboot gi ñëpp rek di ko ñaanal kon fii mooy bërëb bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey maam ci wàllum mberna yi bërëb bi nga xam ne mooy euh, fi lañuy ñuy defar xéewal yi kon soxna yaa ngi fi ak euh, suñ mbokki dëkkandoo yi ak mbokk yëpp kon ñu ngi leen sant leen gërëm taxawaay bi rafet na euh, di jiital ci nuyoo bi nag soxna Kiné Diagne soxna Aminta ak euh, Lo ak soxna Yacine njaay buñ ko waxee rek tudd na ñëpp kon daanaka ku lim juum baa doo matal kon nag sant na leen bu baax gërëm leen ak ñi ngeen àndal ñëpp seen liggéey rafet na seen taxawaay rafet na te nag ba ñuy ndaw lañ leen cee fekk ñu nekk ci doon ay jàmbaar kon suñu ba ñëw ànd kook ñoom kon loolu ndam la nekk ci mbir doon mag ba mag a maga la fekk say doom fekk la fi ànd kook yow kon loolu wax dëgg yàlla ndam la te ñun ñu ñaan ñu nit doom fekk àggale lépp mu yéene ji ba suñu set setaat mboolem ku fi teew rek ñu ngi lay ñaanal nga fekk ay déwén déwén kon suñ caméraman ñu ngi lay siyaar yow it la ñaanal si bis bi tamit nga yàgg koo teewee ba am sa yëfi bopp lépp rek sukkuraan. waaw asalaamaaleykum waa rajo Bawal maa ngi nuyu di sant rek ci suñ màggalu maam gii rek macha allah di ñaanal xale yi njaxate yi rek xale yu am jom lañ ay ate ate ngi nii ñu am jom nag di ñaanal seen maam. ñun nag ñoo ngi ci wàllu xéewal yi rek nga ñun ñoo ci waañ wi ni ñoo ngi ci soble yeeg wàllu jaxate-jaxate yi rek ak loo looyéen yi rek waaw dara jeexu fi di ñaan nag lépp liñ fi ñaan rek kaamil yi ñu fi wàcc ci subaak lépp rek yal na borom màggal gi nangu lépp rek ci barke yonent bi tañ teewaat fi ay déwéni déwén kenn bañ a màgg ci kàttanu suñ borom loolu rek daal laaj amul ma ci doon sànni waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant ñëpp di kontaan ci ñëpp di sant suñu rakk yi bu baax a baax a baax ñoom ñu ngi jiital ci liggéey bi liggéey bi nga xam ne liggéeyu jaamu yàlla la kon nag dañ ciy sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla fekkewaat ko at yu baree bari barke Cheikhul Khadim barke borom bis bi te lépp luñ fi ñaan rek yàlla na ko suñ borom subhanahu wa taala nangu sët yi di ko defal seen maam ay ati at dañuy gone ba négé ni ñu nekk ci suñu waajur yee di ko doon ko def ñun ba xëy génn ànduna bàyyi ñu fii ñu ànd kook suñu rak kon nag uh, ñoo ngi ciy sant bu baax a baax a baax ñu ngi ci waañu yi di waajal bernde yi kaamil yi ñu fi wàccee lépp yàlla na ko suñu borom subhaana wa taala nangu ñuy waajal bernde yi rek nag waaw ndax moom mu murit moom cantam lépp bernde la waaw dañuy bernde rek nag jox gan ñi rek te du am xàjj ak seen incha allah rabbi waa kay jërë ngeen jëf